écoute sur jërëjëf euh, jaajëf euh, Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf internet yeeg auditeurs yi jërë ngeen jëf yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye par Passepartout fii rek laa gis ci kër goo xam ni da ngay olof di jullit sol yëre olof sol yëre jullit ñooñu ñu lay reetaan <laughs> ba ma sumi troisième pièce bi sol sañse sol trois pièces ñëw liggéey si correct organisé ñëw ñu may reetaan influencé ma njaay ni ma summil sa garam bi nga mel ni saali bii <laughs> summi naa ko njaay ma ngi lay dañ laa yërëm rek ci lëfër lëfër ji bi nga dugg si ba léegi da ngay merte kenn defu la waaw xëy rek sol trois ma xam ne yi nga sol la <laughs> léeg di nga sol loo xam ne na infraction vestimentaire journée bi doo ci bëgg dara lu dul wàcc dem ñibbi <laughs> yi moom El Hadj Assane Gueye la jëkk grand mbubb yi ah, baa yaa ngi ci jàmm sant naa bu baax maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay jottali ngërëmu waa Jurbel également ñu leen di kontaanee fi ma nekk ca ngaabu màggal ga ma ne woon mhm. la ma seen mbégte fekk si mhm. ah donc jaajëf euh, jaaraama mm, ñu baax jaajëf waay dee ko dee koy faral di bari la nag mhm, xam nga ñun waa Jurbel dañoo am cër bu rëy ci réew bi dañoo mën gan xam suñ bopp bëgg lu baax teg ci. yaakaar naa ba nga demee feeñ na. am na fa alhamdulilah nuyu waa Sénégal également. Mhm. Euh, may di gërëm mboolem koo xam ne rek bàyyi woon nga sa yitte ñëw teew ci màggalu ngaabu mhm. gi. Mhm. Ah, sant bu baax ñi woote màggal gi. sant mboolem ko fa teewoon ak mboolem également ñi nga xam ne jàpp nañu ci. Euh, amuñu seen fay. am na solo nag mën naa mën naa bu bu bu bu yëfu yu sérieux yi jàllee. mën naa nuyu passeport. ah ci passeport sama ah, waa ji noo def eh, bàyyi ba yu sérieux yi jàll nga soog a ah. nuyu passeport. <laughs> ah ay dafa bàyyi ba yu sérieux yi jàll mu soog laa nuyu. <laughs> mais woote naa nag jour gàmm gi nag. Ah, woote naa ngaabu woote naa pire. waaw yónnee naa tamit. ah waaye di ngeen maa ngi baax a baax di nuyu di nuyu auditeurs yeeg internet di nuyu Ndiaye di nuyu ñëpp di nuyu déglu ci réew mi ak di leen ñaanal jàmm. en tout cas ñun ñu ngi békk euh, ci fa ñu nekkoon ci weekend bi kontaan nañu ci ñoom njaay bu baax ñëpp génn ñëw uy si mm-hmm. waaye di sant ki nga xam ni euh, moom moo ñu may euh, occasion bi ñu mën ko faa def Pape du Fall monsieur le ministre monsieur Dame Diop tabarkàlla kontaan nañu ci yéen bu baax a baax a baax wax naa ni autorité yi nañuy bàyyi xel ci askan wi bu ñu soxlaa askan wi ñëw wuy si leen donc dañ leen di bàyyi xel di leen may ay activités yoo xam ne dañu sentir ne euh, Sénégal du fii ñu toog rek fépp Sénégal la bokk donc def le tour du Sénégal di leen euh, may ay activité culturelles yooyu ñun dañoo pare pour di ko def ku ñu accompagner rek moom la ñu mm. wër donc comme ni ko Pape Modou defee ñu ngi ubbil ñëpp suñu ay bunt ku ñëw rek ñu ànd ak yow muy la am solo mm-hmm. gërëm partenaires yi ñuy àndal ñoom ci xalaas kenn du ñoom muy waa Sénégal seen promotion bi ñu nekkee day wéy ba léegi ci boutique Optic Vision Plus Sénégal yi bu ngeen dëkkee Saint-Louis wala ngeen dëkk Louga xamleen ne Optic Vision Plus Sénégal mi ngi seen wet bu fekkente ne yéen a ngi dëkk Touba wala mbuur wala fii ci Dakar lu ngeen bëgg ci ay lunettes bëgg ko ci accessoire lunettes ci njëg yu yomb te baax dem leen ci boutique Optivision Plus Sénégal yi partenaire beneen bu ñu àndal ci xalaas moo di marque téléphone bii di Miwan Miwan am téléphone Android mais également am ay tablettes di ay cadeaux yu baax lool pour fête fin d'année yi ngir seen ay soppe mais également seen ay doom li ma leen di conseil mooy tablette wala téléphone yu Miwan baax na garanti na yomb na teg ci établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ñi ñu indil gaamu vite fait yokk gaam bi nag yokk seen loxo ak ay produits yu baax te garanti ay produits yu mucc ayib loolu la établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère indi ñu gërëm di leen gërëm bu baax a baax ak ni nga xam ne noonu lañu àndee ak seen émission xalaas Ababacar. ayca am na solo euh, Paas euh, xalaas gi njëkk mu ne lu mu wax. peine de mort. lu yéeme. peine de mort d' abord. peine de mort. war a indiwaat peine de mort. ah gisul fii kat ci programme bi. damay express. ah dañoo war a indiwaat peine de mort. Mhm. Ndiaye insécurité bari na rey gi bari na léegi rey gi moom comme comme demal ma ñëw. la xew ca mbuur day mm-hmm. metti na baax na dama jëlale li mu ñaawee mm-hmm. mais metti na trop metti na trop trop trop trop en tout cas bu yoon teelul woon a ñëw xaw ma penda morom déet waaye booy nañ ko lijjantil seen bopp de xam nga xam nga Ndiaye eh, am na loo xam ne insécurité am na loo xam ne du insécurité mm. par exemple ci fee bii nii c'est-à-dire du insécurité waa ji jóge Thiès jóge jóge Ngent dem ba dem ba Mbour. loolu lii agression loolu du insécurité. Ah. mais insécurité xam nga fan la nekk. Mm-hmm. armes yuy circulé ci biir dëkk bi. waaw loolu jar naa lijjanti. loolu nag mooy insécurité bi jar a wax nag. loolu jar naa lijjanti léegi dëkk bi ku ne ñoxor njaay génne fetal ndax dégg naa mu ne moom armam mi ngi ko jëndee cent cinquante mille. waaw sa arme arme njëg gi romb foofu. sax di dem. beneen bi ci topp mooy yoon yi doomu aadama war a jaar ba yoon wóolu ko jox ko ngànnaay. jaaru ci benn. yaakaar naa ne buñ dee téeméeri sénégalais lañu. Mm-hmm. ñett ñoo ko ciy am. ndax du du sàmba sugum gay mu jug jox la fetal mm-hmm. léegi nag fital yu bari yi ci réew mi lu ko waral fu mu jaar ba dugg. question. fan la jaar ba dugg. am na yoo xam fi de artisanal am na yoo li mu yor du fa moom ki ki la yor moom. xaw ma xaw ma ah, marque yu ci du fetal artisanal belge ma jug. cest à fetal la bu dugg ci réew mi cosaanawul ci réew mi. monté wuñ ko ci réew mi ñeme tiim nit. kalachnikov yi ngay gis nii. fan la jaar fan la jaar ah nañu waxante dëgg. contrôle bu ñu mën a am ci drogue bi. Mhm. ba lu dugg ñu jàpp ko chaque jour nga dégg jaloore ju ci douane def chaque jour nga dégg euh, saisie bu ñu def. Mhm. nañu def nañu góor góor lool également ci armes yi. beneen bi topp mooy man Sénégal day réew mu ma jaaxal Sénégal ngay gis guddeeg bëccëg lutte contre les armes blanches nañu bàyyi arme blanche nañu bàyyi ngànnaay. Mhm. tabaski jot njaayum jaas yi mel ni tulleeg male ci tali. ci kaw tali bi. paaka bu gën a ñëw sa morom nga ne bii waa léegi yow noo bëgg di désarmer woyu yi ba pare am période boo xam ne ñoom mën nañ ci armé wu. waaw pare njaay pompe à gaz ak masse électrique ci mbedd bi lañ koy jaay nii. waa léegi xoolal ma loolu. comme ça régularisé wuñ ci dara de moog fële ñoo yem sa Texas la xaw ma. fu ñu dem ginnaaw pendamoor bi ngay wax nañ ko indiwaat. ah waaw. loolu du kay du affaire de sax ay ay ay dëkku musulman ak dëkku leneen parce que am na dëkk yoo xam ne du ay dëkku musulman te dañ fi appliqué peine de mort. Mm-hmm. peine de mort dañ ko war a indi ku ray ñu ray la. ah mais ñi ko def nag dañ cee dañ cee dañ cee am erreur nag jànge ci. Hmm. dinañ jàpp ne tëj ko ci kaso. vingt ans après la ñuy soog a xam ne lañ ko doon ko doon toppee defu ko hmm. vingt ans après hmm. waaw bu fekkee nga ray ko ba pare nooy def da nga koy suli jiwaat bu nekkee genre fait yi nii nga xam te ni flagrant la da ngaa jàkkaarloog moom nii muy rey amul amul ay kii kuñ jàpp ngay sàcc daal te mu leen yaa sàcc waaw ah. nañ dagg sa loxo ay loxoy sàcc ah waaw kuñ jàpp ngay rey ñu rey la kuñ ku ñu fekk nga rey ñu rey la. foofu moom yëggu ma fa nag. seen at yi ci yéen nag. fi leen arrangé rek fa ngeen ci yem de. Hmm. kuy sàcc ñu dagg sa loxo ku rey ñu rey la. waaw bu dee islam loolu rek la am. baax na am na lu ci ah, wax da ngeen a baax lu yéeme nga ni ma ne yow nañ dem. abaa li li ci ñëwoon vendredi Ndiaye. Mhm. suñu élément vendredi ba. waaw mooy xale bi nga xamante ni yaay ji da ko wax na jóg julli. mu ko daa am lu may lu may xool. lu may gis neen su ma jullee mu rey la. mu rey sama yaay waaw. Mhm. yaay ji forcé ko ba mu julli laaj ko looy gis mu ko benn affaire bu njool fi ñuy waxee mënu ko nee na dafay dugg sama sama mag gi daanale ko mu dugg mag gi mag gi commencé daanu. loolu nag topp la njaay ba jour bu mu ko waxee woon jour ba dellu si même jour ci même mois bi yaay ji gaañu. léegi nag xam nga la may problème bi mooy li ma la waxoon keroog. kër gi ñëppay téeñ njaay. te maanaam du ay téeñ yi nga xam ne da ngay ñëw nii di di rey comme téeñ yi ay téeñ téeñ yu ngand yooyu noonu ba mujj gi ñëppay watu ci kër gi. moo tax nelu nelu abaa day def effet léeg-léeg te dañuy watu xaw am karaw tee ñi waat te tee ñi épargne kenn ci kër gi tout le monde. loolu du rab. waaw mën naa nekk mbir ma la. ndax bañ ne bi jugal julli. mu jug ni su ma jullee am na lu ma jàkkaarloo nee na su ma jullee dina rey sama yaay. ñu forcé ko mu julli. li muy wax noonu dugg magam bu jigéen. mag ji daanu. Hmm. weer yu mu ko waxee woon dellusiwaat. te même bés ba yaay ji génn àdduna yëf yi topp leen ba gis na ni mu ko waxee nee na kër ga ku ci wattu ba sa karaw ñëwaat rek te ñi topp la. du rab bu baax de. waaw waaw. déglu. 2019 mois de mars jour mercredi affaire bi commencé sama doomu sœur mooy doomam bu jigéen bi ci gën a ndaw bi laa dama ko ne jógal julli mu ne ma julliwu ma ma ne ko lu tax julliwoo mu ne am na lu nekk sama kanam nee na suma jullee day rey sama ma ne ko jógal rek julli dara du jot sa yaay incha allah mu ma déedéet du ma julli jullee nee na day rey sama yaay force ko ba mu julli te booba saa mu ngi na ba kii ma ne ko julli rek dara du jot sa yaay incha allah rabbi dégg mu ne ma waaw bu mu jullee ba pare léegi ma tagalaatal ko alxuraan alxuraan muy déglu di déglu di déglu ma ne ko looy gis mu ne ma benn affaire bu am karaw gu gudd gudd tamit muy nekk sama kanam mu may ñaawal sax mu ne sëram bi kii nee na da dugg de moytu ko léegi bu muy pare wax ak kii bi bu muy dugg magam bi benn la mag ci daanu xëm léegi ñuy waxoo dañoo paniqué tellement xamuñu woon nu ñuy def après ñu yóbbu leen si benn paam moccal leen affaire bi jour boobu wàññeeku waaye lendemain bi mu naroon dem jàng école mu nekk di waxtu di wax di wax di wax di menacer frère am di naan bu ñu kiiwee dina dinaa la dóor xaaral bu ñu génnee fii di menacer frère bi mu waxaat leneen tamit di naan kii bi nee na mu may xaar ci bopp ko bi su ma génnee dafa may dóor ma ne ko ah kon noonu fekk na instant boobu ñu ndekki pour waajal dem jàngi ma ne ko léegi bul dem jàngi yow moom toogal na rakk ji rek dem jàngi deux jours jàngiwul ndax da doon waxtu rek di waxtu di waxtu di làkk français yoo xamante ne mosuñu woon dégg mu koy wax sax moo français yoo xamante ne yaakaar woon ne dina ko mën a wax ci âge boobu ñu continuer noonu di continuer noonu deux jours yooyu kiiwul après affaire bi xaw a wàññee tuuti léegi affaire bi dikkee ko teeñ mu teeñ wàllu waa kër gi ñun ñëpp a instant ñun ñëpp def nañu façon garab bu nekk def nañ poudre def nañ afro def nañ am na benn kii poudre teeñ boobu dañ ko castré boobu moom liquide la dafa foor def nañ ko njëriñul dara wat nañ leen bi ma kiiwee bu ma ko watee tey ñu ma gis ci bopp bi musuma kaa gis sama àdduna daa mel ni nag mille personnes lu ñu naroon tey ñu del sotti ko ci benn bopp comme lu ñu soot kii doo comprendre tant que gisoo ko nit ki bu la waxee doo ko mën a gëm affaire bi boobu ba léegi continuer ci amul lu ñu deful wat nañ leen di leen wataat ba nit ñi naan wax yéen doo leen bàyyi ñi ñu kii fekk ñoom xamuñu affaire bi nu mu demee doo leen bàyyi ñu ñu kii ñi ay jigéen lañ waroo leen wat léegi bu ñu leen watulee kii tamit day gën a bari même bu ñu watoo sa affaire bi day fekk muy fa waaye mooy xaw a tane tuuti ndax xam nga karaw bu bariwulee kii bi dina neexal chére tuuti ba léegi am na kii sëram tamit bu watuwaat sax dafay jàng bu ñu demee école bu ñu ñibbisee dañuy mel ni ñu ñu dof kool yi la ñuy njëkk saani sànni di yuuxu fekk affaire yi ñu mu leen sonal bu ñu demee jàng ñu mën a concentré wu bu baax duñu mën a concentré wu bu baax ndax euh, affaire bi nu mu leen di sonale dañuy dem ba dañuy rus saa dañu naan ah ñi ni xam naa de dinañ xaw comp dinañ kii xoolee nañ ñii dañoo teeñ tellement que affaire bi da leen sonal ñun ñëpp teeñ man mii di wax ak yow sama yaay sama doomu sœur yi ñoom ñëpp kii nañ ba sonn mën nañu fex ba tàggoog moom léegi après affaire bi continuer noonu ñii kii di continuer léegi le plus bizarre mooy que kii bu mu waxee kii bi nee na day rey sama yaay deux ans plus tard jour bi yaay ji kii bi dafa tombé même jour mercredi yaay ji ci la gaañu mois de mars deux ans plus tard affaire bi foofu nag la ñu kiiwee la bizarre tellement que affaire bi dafa coïncider wu lii da ngay naan di lii du naturel parce que kii nu mu ko waxee woon deux ans plus tard yaay ji gaañu même jour même mois affaire bi léegi nag daf ñoo travail suñu affaire yëpp a tëju amuñu dara mënuñu kii lu ñu yóotu sax bunt bi bu ubbeeku woon day gën a tëju fu ñu tourné du foofu fu ñu tourné du foofu xiiroo ŋaayoo suñu entre ñun loo xamante ne lu jara xuloo ñu lu jarta xuloo ñu xuloo ñun affaire bi daf ñooy kii say yaram bi dafay fasu doo comprendre te ñee xale léegi seen yaay gaañu na dañu ñaan dimbal rek ku ñu mën a jàppale te yàlla rek a tax mu jàppale ñu yàlla nag am na ñu mu may ñoo xamante ne am nañ xam-xam boo xamante ne bu bu buñ ko ñaanee moom dina leen fi mu daaneele wax na lépp de waaw cest à lu yàlla indi ci jamono mhm. indi na saafaraam. Mm-hmm. bu waree saafaraw rek day wér. Mm-hmm. léegi nag di la war yow mi mu ko nattoo. Mm-hmm. mooy comme li mu def rek di yëglu. di sàkk ku la mën a dimbale ba keroog yàlla dimbale la ak ku koy ku koy ku koy ku koy faj. mais li ñu wax moom metti na trop de. trop metti na trop de. dama dama dama fàtte mais amoon nañ fi benn maire bu amoon genre cas bii nii. dafa mel ni maa ngi koy fàttaliku. waaw ba woote woon fi am am na ku fi woote woon ne ne ne mën na ko mën na ko faj ba ñu booloon ko ak moom dama xamul nag parce que mais boobu la ko gëj a dégg. d'accord ñàkk ñu ci mën a yëglu pour am lu ñu ci def ku ci mën dara daal te yàlla tax nañu contacter ci 77 150 17 17 ñu mettre leen en rapport. baax na. Ndiaye. dara mm-hmm. baax na ñu avancé. yow dañuy dem fële plan jaxaay. gars yi di def contrôle prix. ci boutique yeeg yooyu maanaam nañuy fexe di organiser seen liggéey bi ndax am nañu ñoo xamante ni ñu ngi topp seen tànk yi yore seen i oto yore seeni i carte di wax dañuy contrôler prix am na ko ci xamante ni waa fu mu toll nii bës jaxaay ñu ngi koy wër otom la yor dugg bi plan jaxaay topp borom boutique yi mi ngi leen di bëgg a rey njaay plus de trente boutiques bi ko gars yi démasqué nag te xam nga bu nu ñëwee fekk la nga war a wàññi boo wàññiwul am na yoo xam ne dañ koy jël dañ koy yóbbu waaw wala ñu ah, wala ñu amaan la nga fay borom bitig bi nag benn waaju muus moo ko ci génne benn waaju fekkee seen bi mm-hmm. moo ko ci génne mais loolu ñii il faut ñu teel cee jóg teel def ay communication ah baax na waaw nañ déglu déglu maa ngi dëkk euh, plan jaxaay yàgg fi lool xam naa li fi nekk lépp tey nag ñu xëyee gis benn waay boo xam ne otoom la yore di wër boutique yi mu ni agent contrôleur prix la alors mu triandane fi ay boutique yu bari nag avant muy egsi ci boutique bi nekk sama koñ euh, bi ma ñëwee di jënd ci boutique bi fekk fi waa ji mook boutiquier bi ma gis boutiquier bi nekkul quoi mu jaxasoo quoi ma gis ñaari gaz yu mag yu ñu génne ma gis ko muy génne xaalis ndekete cent vingt mille la ko doon laaj bi ma ñëwee mille cent franc la booy bi delloo ma quatre cent ma xam ni booy bi nekkul quoi man ne ko mais yow lan moo xew waa ji mi ngi taxaw quoi pour man dafay jënd ndekete arnaqueur bu mag la par la suite ci la sama xel daw ma gis comportement am euh, wóolu ma ko quoi man ni mais booy yow lan moo xew ba mu ne boutiquier bi lan moo xew tontu ma quoi man ko eh waxal ak man lan moo xew ci la xool waa ji man ko ah, waa ji man ko yow contrôle de prix nga mu ni ma waaw man ko yàgg na ànd mu ni ma noon ñu ma àndal dañ dañ koo jiitu nekk ci yeneen boutique yi quoi ndeketen waxul dëgg mi ngi gaare benn oto bu amul plaque ginnaaw comme ginnaaw la ma wonoon boo sama xel njortul woon sax ni ni kii arnaqueur la mais bi ma ko nee euh, ana sa carte professionnelle ma gis ci la génn boutique bi wàcc escalier yi dugg ci oto bi rek taar rek démarrer ak vitesse daw man boutique bi gis nga la mi ngi noonu daw euh, par la suite dans trente minutes bu mu amee trente minutes ci la waa police ñu alerté leen ñu topp trajet waa ji boo may joxee message rek que ni yu mel nii yàgg ngeen def ay émission di ko wax nit ñi euh, nañu moytu bu baax ku ñëw rek ni nangam laa rek nga gëm ko te et li ci gën a yéeme mooy ñoom dañuy yore ay carte professionnelle yoo xam ne dañu koy falsifier loolu aussi lu lu lu lu naqaree constaté la bu dee ñoo xam ni comprendre ñu seen seen seen système loolu mi ngi ci biir jaxaay bi faites très attention que ni arnaqueurs yi ñu ngi fii ci biir jaxaay ba pare li ci gën a doy mooy dëkk bi léegi dafa soppeeku mais en tout cas daal jamono yi moom doy na waar trop nañ def il faut être très ci côté bu mel noonu loolu laa ne woon dina ko jàllale équipe classe ku ñëwati seen place naa leen contrôle de prix jéem leen a am numéro commissaire wala numéro police bu ñëwee ngeen woo ko mu toog témoin parce que sinon rek mooy loolu quoi ñi def lu bon moom ñi ngi def lu bon te dañuy mbubboo ñi nga xamante ni ñoom ñu yore liggéey bi ñi yore liggéey bi aussi war nañoo mën a fësal seen bopp ba ñu xàmmee leen ba ñu xam ni ñii ñoo yore secteur bi wala ñoom ñoo yore secteur bi mais jékki-jékki rek nit ñëw ni la contrôle de prix rek doo xam même ñi ñëw di ko def sax ay identification bu ëllëgee kii day ñëw bu ëllëgee kee day ñëw mel ni affaire bi dafa jaxasoo. xalaas ma nga noonu. Ah. dañ ko war a organiser waat ba mu gën a leer moom. Mm-hmm. ñi nga xam ni ñoom ñoo koy def ñu mën a xam ni ñii la. Mm-hmm. bu ñu ñëwee mën a def présentation mën a wane lu leer ba pare ànd ak ay al alkaati. Mm-hmm. waaw loolu moom dafa war a leer ñëpp mën koo xam. parce man nga dimbali askan wi ne leen dañu wàññi yëpp wàññi dund géeg loolu yëpp neex na mais def suivi boo xam ni dafay contrôler mhm. muy leer tamit loolu c'est très important. xaw ma mesure yi ñu fi yi ñu fi jotoon a jël de. Mhm. mais man sama xel sama xalaat. Mhm. yu mujj yi. li mu yàq ëpp lu muy defar. defaragul de. lu defaragul lu bari boo ko aw. abaa man sama koñ boutique nangu ñoo jaay suukar. lu tax parce que nañ duñ ci génn. li leen ko bëgg jaayloo ak ñoom liñ koy jëndee buñ ko jaayee duñ ci génn gis nga nañ ko def joo gis nañ ko waxtaanee koy jiitu. Mhm. baax na jamono metti mhm. ngay njiitum réew woo ñi nga war a waxal waxtaan ak ñoom sottantey xalaat ngeen ne dañuy wàññi. Mhm. waaye nag day fekk ci kaw mu mën a nekk. am consensus. voilà mais ñun. baadoole yi hmm. war a xëy ndékki gàddu suñu fanweer wala suñu ñeen fukk dem ci boutique ba hmm. bëgg lu ñu suukare suñu café baa suñu duute hmm. dem borom boutique bi ne amul suukar nga xóoyal ko noonu jëri ko noonu di naanti gàññi ba ñoo wàññi njëggee ko gën mais ñoom bi ñuy seeti consommateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ay grossistes yeeg ñiy jaay ñooñu yaakaar na ni toog nañ ñu waxtaan. c'est que problème bi foofu mooy erreur bi. Hmm. dañ dul dem ca. ñi mu concerne ñi mu concerne. c'est comme campagne commercialisation arachide bi wax nañ ba fixer seen i prix li ñuy jaay kilo gerte bi ñun musiba la ci ñun baykat yi parce que bañ koy def. Hmm. waxuñu ci ak ñi nga xamante ne ji ñooy baykat dëgg. Hmm. li ñu woy les cultivateurs du euh, du dimanche la ñooñ lañ dajale rek toog. après nag boo waxee ñu naan way di gune mais njëg yi moom yoon yu mu jël baaxul yoon wi mu jël xam nga lii ay contrôle la dañuy dem di door boutiquier yi mm-hmm. communication bi ci war sax bu ci amoon boutiquier bu gisee contrôleur dina xam ne kii contrôleur la et puis ñoom tam njaay nañ am culture aussi non seulement du yore carte léegi mhm. léegi imagine toi ñi ngi wax ne way journalistes yi dañuy dem wuti carte presse bu bees bi euh, ba ci même déclaration politique général bu Amadou Ba tey bi ku ko yorul doo dugg doo dugg mhm. d'accord naa ci mhm. waaye ni mu valable foofu ñuy segg ñenn ñi ñi la valable ci police gendarmerie corps yëpp ah, foofu laa demoon xam nga kii nii booy bi ñu doon laaj cent vingt mille bu ko joxee woon xam nga bénéfice su ñaata bénéfice weer ëpp na ko sax fi mu jot a jaar yëpp la fa waaj def moo tax man la dogal yi moom xaw ma luñ ci dugal de waaye jëmul kër. léegi dañoo waroon bàyyi kon prix yi noonu mu cher noonu. ñu doon ko wàññi déedéet déedéet waxuma lool de waxuma lool de waxuma lool de. dama xam ne bu ñu wàññiwul ñu ne wàññiwuñu bu ñu wàññee ñu ne ni ñu wàññee baaxul <laughs> waaw waaw mais dama xamul dama xamul fan la problème bi nekk en fait wàññ wàññi bi dañ ko waroon waxtaane en fait fii fi Ndiaye di waxee waxtaan nañ de waxtaan nañ ko sax waxtaan nañu mais dañ caa beddi ñu ca waroon waaw ñi mu concerné loolu mooy ba tey mooy ni ñàkk waxtaan bi xam nga borom boutique yi koñ bi ñoo ñuy ravitaillé ñun ñoom lu ñuy wax bu ko appliqué wul mesure bi dénoncé ko. Mhm. Mhm. man dinaa dem ci boutique bi am fa carnet yore ko lu dul jeex di ko dénoncé ndax juróomi dërëm yu ñu wàññi juróom kese da ko dul jar. te nga am fa. carnet trente et quelques beneen bi ci topp mooy. ñoom nee nañu ngir ñun ñu wàññi. Mhm. ña ñuy jaay nañu wàññi. loolu tamit dëgg la ah waaw. loolu tamit dëgg la de. mais nga mi daal. mais mais mais Abba. xam nga fa la problème bi nekk. bu ñu wootee ñii wuy si. tey bu ñu nee kaay ñu réunion. ñii président euh, consommateur yi mooy wuy ji. mu ngi mel ni benn consommateur boo xam ni moom xam nañ ni kii consommateur la. ku mi ngi mel ni ngay wax ak chauffeur yi. déjà président consommateur. Mhm. bu dul fay location xamul lu di dund. dañ koy nettali rek. te mu yor këram. waaw président consomateur mën boppam waaw. kooku man mënul xam ni c'est que mi ngi mel ngay waxal chauffeur yi woo transporteur yi noonu la mel rek. mais loolu problème bi nag. mi ngi mel ne nga war a waxal chauffeur yi nga woo transporteur yi. waxal transporteur yi mais Ndiaye nañ am culture aussi di yor di yor carte professionnelle non seulement mais tamit bu fekkee dañuy amaat ñu bind la reçu bàyyi la fa reçu nga dem ca bureau ba nga dem fay ji benn mooy Ndiaye mhm. moo xam am na tenue en général boo nekkee en civil ngay interpeller nit ko xam ci mbedd mi soir nga wan ko ni ko yow wan ko ni ko policier laa nga jaw nga bàyyi ko temps mu xool sa carte xam ne yow mi policier nga yenn saa yi policier boo nekk en am na mu la songee xam ne mooy loolu de léegi daal ñi nga xam ne ñoo yor wàllu commerce gi ñu ngi wàcc ci mbedd mi jaay nànk par nànk di waxtaan ak réew mi c'est que nag réew mi ngande <laughs> yaatu yaatu goo xam ne faaw ñu def ko étape par étape nag moom waaw faaw ngeen may ñu temps ñi nga xam waaw ñun consommateurs yi bëgg ñu wàññil ñu nañ ñu ñu ngi ciy sant bu baax faaw bu tikkee dawal compréhension nag moo xam prix yi day seer réew mi metti wala ñu wàññi prix yi ñoom ñu sacrifié wu jéem a xool nu ñu koy gérer réew mi moom amul fooy laal pour mu neex ñëpp wala fooy laal mu baax ci ñëpp baax na fële ca euh, Touba mhm. Pape Balla Gueye Gueye Pape Balla nee na démb ci guddi ca quartier Ndamaatu mhm. dafa am attaque à main bu fa am encore ay bandi yu fa joox ak seen ay ngànnaay ba yóbbu koofar 3 millions moo ne woon ca coffre ba. station sëriñ Gueye bu Ndaamaatu. 3 millions lañ fa jëla ah. Ndiaye dañuy génn tuuba dem Kaolack benn xoj bu ñuy wax jarañ Ndiaye la xew Kaolack man mënu ma la ko wax ndaw si daf doon sëy ak boroom këram ñu sëy huit mois bi ñu sëy huit mois waa ji am problème ñu tëj ko kaso waa ji waaw jëkkër ji jëkkër ji mais bi ñu koy tëj kaso nag ndaw si ëmboon na ëmb trois mois bi ñu ko tëjee nag ci biir ëmb bi dégg moom bu baax de goroom maanaam papaay jëkkëram ñëw ci moom ne ko benn sëriñ nee na ma il faut ma séq ak yow jël li ci li nekk ci yow def ko ci ñam jox ko sa jëkkër mu lekk ndax mu génn kaso ndaw si bañ dans un premier temps ci li mu wax nee na paa bi topp ko di ko laaj ay daggatu yéreem ak ay karawam ak yooyu pour defal jëkkër ji pour mu génn premier jour bi muy dem di séq ak paa bi xamul sa fan la jaar. te boobu njaay mi ngi ëmb ba diis. ëmb doomam. waaw maanaam doomi doomam. doomi doomam. ak sëtam quoi. waaw. paa bee bon. pour yow foofu fa la fa la wax ji yem. Hmm. Ndiaye lii continuité la man paa bi woo naa ko wax nañ man ak moom. paa bi ci boppam. osé na wax ak yow. paa bi nen defaree def te sa mais nañ déglu ndaw si ba pare. déedéet wax nan la def ba. suba suba léegi léegi nag Ndiaye dafa am beneen lu ne ci biir. parce que jëkk ji dañ ko condamné à vie. loolu tamit question la parce que. paa bi tëdd na goro. maanaam tëddee na ko ci kaw ëmb doomam. waaw tëddee waat na ko ba biiral ko encore instant yi ndaw si daa biir doomu paa bi. ëmb biir benn la rek Ndiaye. déedéet xam ne ça dépend ko nga ne déedoo <laughs> xam. mag la mag bu defee yëfi xale kay ñu wooyee ko ni ñu wooyee xale. <laughs> <laughs> léegi nag Ndiaye. Ndiaye man dama bëgg lijjanti tëj à vue waa ji. lu ko andi waaw parce que waa ji il paraît la woon ñu attaqué station ah bi. waaw waaye yëg naa histoire boobu noonu. waaw mm, yëg naa histoire boobu. sàcc ñu fa xaalis. nit deewu fa ci attaque ba yëgoon naa ko. mais daal waa ji condamné ko. woowoon nañ ma fi. waaw parce que dañu defoon appel